teggin soo toogee kilifa na nga war a jëflante moom ci ak xool am na loo xam ne ko def ngir barkeeloo ko ci jëmmam image boobu ngay téye ci jëmmam day des ci sa biir lu bari dina jariñ lu bare bare bare bari waaye nag rek di tee teggi nekk fa yoo xam ne ñu war a bàyyi xel la sëriñ bi ñu koy wax dina joxe la ak wax ni kilifa boo nekkee moom it du jaaru saa yu ne rek sa dëkk seen i bët daal di def ñeent nga jàkkaarloo moom noonu rek dañuy boole ci tey jii bañ sës ci moom bi ak tam bañ ko fixé ba mu ëpp loola it lu am solo la loo xam ne mat naa bàyyi xel yow kay sëkkal rek moom xool na ko ci yërmande yooyu nga xam ne su la ko xoolee sa defaru biir ak bit xet na ca loola waaw nasartul xub bi min alcheikh loolu sëñ bi waxee xool jafe bi nga xam ne dina bàyyi ko ci ab saytu ci ci muritam nee na loolu mooy digg digg may yi ak njëriñ yi loolu mën naa juddoo foofa xool bi nga koy xool yow amal na la njëriñ ndax dana des ci yow loolu ab soññ yokk sa cofeel ak sa mujjeel ci moom waaye nag xoolam lépp a jël jëme ci yow wala ëpp njëriñ kon boo barkeeloo ci jëmm ci gis ko. sa jël rek ya teewlu ay kàddoom ngir nga mën koo jariñoo yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne dinañ dimbali murid bi nga xam ne dafa ñëw ci say ko ngir di fa baatal ay kàddoom da nga xam ne lépp lu ñu wax yow rek muy sotti ci sa ndabul xol la loo xam ne lu ciy liñ digal si jiite mooy jëfe ko lu ciy ay tere rek la war a doon si jiite mooy bàyyi ko waaye lu wax yoo xam ne dañ la koy jënd. waaye ngeen ko dund ko la ndax wax jëpp niital la xal la wan la aw yoon ak dénk la ak digal la ak tere la loolu rek lay làmb kon yoon wi lay wan ak di la niital yokkal say jéego nga dëkk say jéego bu baax la dox jëm ci moom te la ciy ay digal nga góorgóorlu jéego bu baax a baax la ciy ay tere nga sabab lu ngir wan ko ginnaaw loo man loolu dana tax nga baax a baax ci li nga xam ne moo lay ñoom alali suñu borom lañ yor muy ak leer boo xam ne leeral suñu borom la ci la ñëw ci nga misaaf ak ci nga misaaf ak suñu borom donc lu tuddee mën ne yàlla lañ waaye alali suñu borom lañ yor te yàlla ngay jëflante boo doon toog ay at gisu lay da ngay def ci ay kàddoom ak ci ndigalam te di ko jëfee xamal ne kenn gis mu di la gis déedéet la gën a gaaw ci mooy rek sax ay ndigalam di ko jëfe la digal yëpp te bakkan taayal ci ngay bëri sa bakkan nga gañe ko ngay jëf digali sa say yi lay tere yëpp sa bakkan li nga xam ne mooy jàppal sa teer bi sa diggante say waaye du jataay moom ak gis ko jamono bu nekk rek loolu bokk na ci tey bi mën a bàyyi xel lool waaw waxtu bi jot na loolu yi waaw incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh